macha allah mu xaddam ci kon ñu sant yàlla julli ci sang bu tedd bi Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bi ñu mayee ñu teewaat ren ji ziaram bi fii ci Louga euh, ma ànd ak ma euh, présidente Aminata Mbengue Ndiaye ànd ci ak kilifa réew mi yëpp euh, président Aminata Touré aussi ak membre gouvernement bi ñu takku ministre des finances ministre de l'enseignement supérieur ministre de l'élevage ministre de l'industrie maire de Louga ak euh, responsable politique yi Louga yëpp Mamour jàlloo ak euh, aussi Mbéri Silla ak mboolem responsable yi nekk fii ak sénégalais yëpp ñëw di ko ndokkeel ci bés bi ndax bésu lislaam la waaye ci biir euh, waxtaan wi xamaloon na ma ne ren ji dafa amoon ab cadeau presque bu mu ma dencaloon cadeau boobu nag mooy kër gi ngeen gis muy kër gu yànj lool mu nar ko def maison des hôtes maanaam këru gan yi euh, boo xam ne ci biir tam dafa am ay appartement yoo xam ne pour njiitu réew mi la ko jagleel ak bii nga xam ne bu paree moom lay jox euh, ñi ñëw di ziyaare si muy lu rafet muy lu lu ma rafetlu lool sant ko si gërëm ko si parce que lu gën a bëri dañuy laaj état bi di def waaye bi ñoom ñoo def ba pare jagleel ñu ko kon nag loolu teranga la moo ko ci sant bu baax a baax di ko ci gërëm di ñaan yàlla bàyyi ko mu yàgg fi lool ànd ak wér moom ak kilifa diine yëpp yi nekk ci réew mi